mission pôle emploi bu ñu koy wax aussi c' une mission boo xamante ni dañuy commencer ci cappaandaw gi. Mhm. parce que le pôle emploi c' un service public. Euh, permet d' accompagner les jeunes dans leur parcours de demande de formation de demande d' emploi de demande d' insertion professionnelle mais aussi de demande d' information parce que tey da dem ay dëkk yu sori yoo xamante tey après dinañ si ñëw. Euh, jeune bi day yeewu euh, bëgg information lu jëm ci côté mbirum formation. bëgg information lu jëm ci mbirum emploi mais de enclavement dañoo am problème accès pour yenn grande ville yi dañ doon am problème pôle emploi bi donc day permettre euh, rendre accessible les services de l'État avec li nga xam te ne moom mooy usage. les jeunes n'avaient pas l'information dafa inaccessible woon mais également euh, dafa tasaaroo woon en fait s'ils avaient besoin peut de quelque chose. donc bokk na ci mission pôle emploi aussi mu créer benn synergie. de toutes les structures qui interviennent dans le cadre de l'emploi de l'employabilité je peux citer le 3FPT bi nga xamante ne moom mooy gérer lépp lu jëm ci le financement de la formation professionnelle je peux citer programme de formation école entreprise je peux li nga xamante ne moom mooy la DER/FJ bi nga xamante ne moo yore lépp lu jëm ci financement je peux citer ANPEJ bi nga xamante ne lépp lu jëm ci côté emploi moo ko gérer la de toutes te euh, ñu éparpillé woon à travers le temps yu ci bëri si ñoom aussi amuñu woon des sièges au niveau territorial mhm. maanaam des grande villes rek nañ doon nekk pôle emploi dafa leen permettre tey jii ni ñu jege askan bi ba pare mën a communiquer tey bu jëkkoon aussi am na lu daan am da nga gis benn jeune boo xamante ne tey da doon ñëw déposer DER déposer 3FPT déposer ANPEJ bénéficier wu ci toutes ces structures. Mm. alors que am na yeneen jeunes yoo xamante ne mënuñu si am accéder. Mm-hmm. xam nga loolu tey day créer le problème des doublons. ñenn ñi ñëw si profité wu ñeneen duñ si profité wu. mais manque de communication structurelle dafa doon waral jeune bi duñ ko suivre jeune bi bu ñëwee tey 3FPT may ko bonne formation ñu jeune bi pare bëgg def entrepreneuriat mais kooku dañ ko war a financer accompagnement financier boobu noonu jeune bi day obligé. Mhm. mu dem di wuriwaat fa la DER nekk fa la structure de financement yi nekk. alors que le pôle emploi dafay permettre dajale nga xam te ne mooy structure yooyu yëpp mettre leen dans un même guichet unique. dafa am benn partage d'information. effectivement entre structure yooyu. déjà xam nga en étant sur place ça facilite la communication. bien sûr damay wax ni le pôle emploi aussi tel que organisé dafa am des structures que l'on instituts yi nga xam te ne dañoo am des représentants au niveau du pôle emploi mooy mhm. 3FPT muy DER muy li nga xam te ne moom mooy ANPEJ tout coordonné par un coordonnateur technique boo nga xam te ne dépend au niveau du ministère ba pare sous la supervision euh, générale du du du préfet mm -hmm. yooyu noonu ku ci nekk da nga am rôle au niveau du pôle emploi déjà c'est l'ANPEJ qui accueille ANPEJ bu accueillir ñëw def li nga xam te ne moom mooy euh, profilage parce que jeune bi bu ñëw rek yoruñu ay emploi ay formation yoo dañ koy distribuer mm-hmm. comme ay mm-hmm. non non mm-hmm. emploi effectivement day permettre di accompagner les jeunes et les femmes dans leur parcours d'insertion professionnelle boo ñëwee dañu lay defar profilage xam yow jeune bi yow yaay kan lan nañ si lan nga soxla ci lan lañ la war a accompagner si lan nañ la war a euh, ban structure nañ la war a jox pour li nga xam te ne mu permettre la nga mën a réussir li nga xam sa projet. Mm-hmm. loolu mooy permettre tey profilage boobu amee 3FPT si la koy affecté 3 ANPEJ euh, si la koy affecté 3FPT pour la formation wala li nga xam te ne moom mooy DER mais am na yeneen structure dites non permanente wax naa ko sànq. tey lu mel ni APIX lu mel ni ADPME lu mel ni ONFP lu mel ni li nga xam te ni moom mooy des autres structures yi nga xam te ni ñooy mooy les services d'orientation professionnelle euh, structurelle comme par exemple je peux signer la direction d'orientation professionnelle mooy DOC ak yeneen structures yi nekk dans le dans ce domaine amuñu des représentants au niveau du pôle emploi parce que mm-hmm. c'est des questions d'espace mais c'est des structures non permanentes parce boo xamante ni dafa yor soxla accompagnement technique dañuy interpeller ki nga xamante ni moom mooy euh, ADPME pour mu accompagner ko uh-huh. tey en grosso modo tey euh, mission pôle emploi loolu la et emploi aussi dafa am d'autres missions tey au niveau local la nekk département boo fa nekkee tu prends des initiatives le pôle emploi est chargé aussi d'assurer l'animation économique au niveau de, du département